ñu mboolem ku bokk ci kawaadirul muridiya di topp liggéey am solo yi nga xamante ni ñi ngi koy def ñeel eh, lislaam bi ak lépp lu ci aju eh, muy imaan islaam ihsaan ci di ko défendre di ko leeral waaye tamit di waxtaane lépp loo xamante ni yitteel na euh, umma bi euh, ci loolu sax la Kawaazirul Muridiya xalaat benn barnaamij boo xamante ni dañ koy tuddee al umma nga xam ne dañ ciy wax lépp loo xamante ni dafa yitteel al umma al islamiya lépp loo xam ne dafa yitteel umma bi taarixul umma al islamiya euh, di histoire xeetu yonente bi salaay salaam ak xaadirul euh, umma présence am maanaam euh, li umma bi nekk di ko dund waaye tamit mustaqbalam loolu kawaadirul muride daf ko yittewoo tayit umma bi ku ko waxtaane da waxtaane ay euh, saxsiyaat te ki jiitu ci saxsiyaatul umma mooy annabi sallallahu alayhi wa ak ay uh, saxaabaam xulafaa yi ak ñi ci topp ñe ba egg ci suñu réew yi di Afrique nga xamante ni ay nit yu yàgg am taxawaay ci umma bi yàgg nañoo taxaw ngir défendre umma bi défendre l'islam uh, kawaadirul muriid day yittewoo loolu waaye tamit bépp xadaaya boo xamante ni euh, yitteel na umma bi kawaadiral muriid daf koy yittewoo ngir wane ci taxawaayam in ci njàngaleem ba umma bi euh, am jaat ya mu nekkee woon umma bi dellu ci teyit loolu day dañuy fekk ci li yonent bi salaay salaam waxoon ni man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum ihtimam bi amril muslimin mooy yittewoo mbiri jullit ñi day làmbu euh, euh, xam mboolem dëkkuwaayu jullit yi mooy maarifatu buldaanil muslimin waaye tamit xam seeni axwaal réew yi jullit yi nekk ci àdduna bi yëpp ñu xam seeni axwaal xam la ni dund waaye tamit xam mu amaraat kaw ni ye bi nga xamante ni aw nit ñi ngi koy def diddal islam wal muslimin diddal umma conspiration yi nga xamante ni ay nit wala ay kuréel wala ay diine wala ay masaay fikriya wala noo ko mën di tuddee dañ koy def contre umma bi loolu yittewoo mbiru jullit ñi daf ca bokk nga xam loolu kon mboolem dawaayir yi nga xam ne dañuy fexeel euh, umma bi ak masaayib yi nga xam ne day wàcc ci ñoom yooyu yépp nag nit mënu koo yittewoo lu dul dangaa fexe xam ñooña lañuy dundu fexe xam naka la ñuy tajaawu bi ak euh, mbir yooyu te yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañu ni masalul muminina fi tawaadudihim wa taraaxumihim wa taatufihim ka masali jasadi isastaka minhu udwun tadaaha lahu saayirul jasad bi sahri wa xuma kon jullit ñëpp non seulement dañu war a yittewoo seen taarix waaye waaxool umma li umma bi dund ak fu mu fu mu di nekk ci àdduna bi julli ñi dañ ko war di yittewoo xam fi julli ñi dëkkee am al muslimin fi l waaye tamit xam seeni awdaa siyaasiya xam seeni awdaa iqtisaadiya xam al al islaamiya yi nga xam ne ñooy yëngu ci àdduna bi ya nekk ci lislaam dëgg ya ci nekkut xam maanaam mboolem lu am si la ak lislaam nga yittewoo ko loolu dafa bokk ci ak ihtimaam bi amril muslimin kon mbokk yi euh, ñi ngi ba léegi rek ci muqaddima bi ñu def ci barnaamij bii di al umma te Kawadirul Muriid di ko yittewoo ñuy wax rek maanaam euh, idée général bi nga xamante ni moom la al euh, umma di traité Euh, bala ñoo ñëw sax ci euh, temu tay bi ak li tax ñu koy tàmbalee ci thème bi mu bëgg a tàmbalee moo di ni kon jàngat histoire lislaam ak euh, xaadirul muslimin présence u jullit ñi seen seen tay fexe ba xam lañ cey jël ak lañ cey delloo waaye man koo settantal mën cee indi waa indi ay ay taxawaay ay bayaanaar ak ay mawaaxif loolu laaj na jullit yi xam euh, dëgg dëgg lislaam xam mboolem xadiya boo xamante nii xew na ci lislaam wala xadiya yi bëgg xew ëllëgu jullit ñi loolu dafa nekk lu am important loolu moo tax nag kawaajirul muridiya euh, jël barnaamij bii di al umma ngir traité ci Euh, thème yooyu ñu wax nga xam ni benn bu nekk rek mën nga ko jël tereete ko waaye tamit fexe ba nit ñi jullit ñi umma bi ñu yëg ni benn umma lan yëg ni tamit dañoo war a ànd ngir euh, yëkkitandoo dóorandoo ci maslaxatu maslaxatul ibaad wal bilaad loolu li tax a jóg euh, barnaamij bi ci la bokk léegi nag bu dee émission tay bi dana leeral moo tax ñu di ko tàmbalee ci point bi ñu ko bëgg a tàmbalee. ñu bëgg koo ci point bi ñuy waaj a wax te mooy euh, waxtaan ci dawaa'ir wala jamayaat sirriya société secrète wala al munazamaat al xaamida mooy groupuscule yi nga xamante nii dañoo bokk ci ñuy gën liggéey pour ndërmeel umma ummatu sayyidina sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñu tànn njëkk leen a waxtaane waaye munaasaba beet bokk na ci ku ñuy wax Ousseynou Seck ñu gën ko xam ci Akhnatoun wax ay wax yoo xamante nii Euh, daf ko jëmale ci umma bi jëmale ko ci lislaam waaye tamit jëmale ko ci benn ci kuréel yooyu nga xamante ni dañuy liggéey bu dégg bëccëg ci tadmir al umma al islamia di franc-maçonnerie mu mel ni dafa jug jëleen tàgg moom euh, Ousseynou Seck Akhnatoun waaye njëkk ñuy ñëw ci kàddoom yooyu xaj na bu fekkee du xaj ci xalxa bi danañ ko def ay xalaxaat danañ xamal xamle lan mooy almasuniya di franc-maçonnerie kon na leer ni munaasabab ñu tàmbalee almasuniya mooy loolu mooy wax suñu fekk yooyu nga xamante ni aw nit ñu ngi koy dégg di gëm lañuy wax comme méthode franc-maçon yooyu ñu bëgg a waxtaanee di jëfandikoo ay kalimaan maasula di nax ay nit fekk kalimaan yooyu ci kaw gi lem la mais ci suuf gi kaani la loolu nag leen bëgg a waxtaane ba ku dégg euh, kuréel gii di franc-maçonnerie nga xam dëgg-dëgg mooy lan lool nag dañ ko tënk ci point yii ñuy bëgg a wax xam mbokk yi euh, point yii ñu dugal xam naa ku ko bëggoon a waxtaane benn bu nekk rek laaj na xalaat boppam waaye bu jëlee ñu def ay yu bari incha allah danañu ko def te mooy waxtaanee almasuniya taarif bi mooy lan euh, bu ñu waxee franc-maçonnerie lu muy wundu waaye lan mooy xaqiqatul masuniya bu ñuy wax maahiyatul masuniya mooy lan dëgg dëgg franc-maçonnerie lan la lu mu wundu waaye waxtaani seen nasha euh, seenuk sosu waxtaani seen histoire maraaxil yi mu jaar yëpp waaye nag lu am solo waxtaani seen ahdaaf seen objectif waxtaani tamit nizaamu duxuufil maasuniya maanaam naka la ci naka la ci nit di duggee loolu nag waxuñu ko pour nit dugg ci waaye li tax ñu koy wax mooy bu ndee ba ci mujj gi da ngeen gis ñuy waxtaane xukumul indimaami laha lan mooy attib dugg ci te la shakkan yi euh, waxtaane mbir yu demee nii dana tax nit ki xam fan lay teg ab tànkam ci kuréel yu mel nii moo tax suñuy waxtaane nizaamu duxuufil maasuniya waxoon ko pour teel a dugg ci waaye waxtu filatul maçonniya bi yahud relation bi am ci diggante franc-maçonnerie ak yahud lu mu wax tamit jamayaat yi nga xamante ni dafa topp almaçonniya dafa topp franc-maçonnerie waaye nag waxtaane beneen point bu am solo mooy xutuuratul maçonniya mooy dangerosité xutuura bi franc-maçonnerie am ak seeni jaraim seeni crime waaye waxtaane beneen point yëpp muy halil maasuuniya diin am laa ndax franc-maçonnerie diine la wala déet loolu tax ñu ko waxtaanee Ousseynou Seck point yii ñuy wax yu ci bëri ñëw na ci di ware ni franc-maçonnerie du diine seexuñu diine waaye ndax franc-maçonnerie diine la wala déet su fekkee diine la jën yàlla la ni jaamu ak ndax ñoom dañuy xeex diine wala xooy xew ñu diine loolu Ousseynou Seck bokk na ci li mu wax ci vidéo boobu waaye ñun waxuñu rek pour Ousseynou Seck dañuy xam wax xam ne lu gën a yaatu ci wàllu franc-maçonnerie ba bu ko nit ki déggee bu déggee ko cay wax di ko rafetal mu xam dëgg dégg franc-maçonnerie lu mu ak nag àtte dugg ci waaw bu demee nag danañ jël euh, wax ji Ousseynou Seck wax ak ñi mel ni ñoom décortiquer ko benn par benn même bu dul ci xalxa bi ñu xam ne dëgg dëgg lan mooy franc-maçonnerie kon kon point yi ci wàllu franc-maçonnerie yi ci barnaamijul umma dañ koo waxtaan rek ne mais franc-maçonnerie mënoon ngaa waxtaane yeneen point yu gën a bëree bëri ci gën cee dugg ci ay détails mais loolu incha allahu rabbi bu ñu fi yàlla bàyyee yooyu dinañ ci gën a ñëw surtout nag waxtaanee ay rumuusam symbole yi ay asraaram ak yu bëri yoo xamante ni aju na ci wàllu franc-maçonnerie wala sax ay jamiyaat yoo xamante nii taabia lil masuniya benn bu nekk ñu jël ko benn par benn ba ci sax ay kuréel yoo xamante nii euh, soo ko déggee sa xel lu dem ci nii kuréel gi ndax war naa am rapport ak franc-maçonnerie te fekk am nañ fi la bu dëgër a dëgër seen digg ak franc-maçonnerie yooyu yëpp dañ ko jël waxtaane ko waaye daal ñu xam ni kon barnaamijul umma li ko tax a jóg mooy traité lépp loo xamante ni dafa yitteel al umma al islamiya ci démbam ci tayam ci ëllëgam waxtaane mbooleem xadaaya yoo xam ne dafa yitteel jullit ñi ak fu man di nekk waa euh, mbokk yi xam naa euh, Franck Moussa bu ñu ko doon taarif bu ñu dugg ci taarif bi dañuy wax ni euh, almasuniya di Franck Moussa Ndoye dafa bokk ci benn ci firax aalam yi nga xamante nii lu mat bàyyi xel la mooy dañuy woote ci ay shaaraat amma euh, maanaam ay ay baat yoo xamante nii nit ñi dañ koy faral di dégg comme li ngeen dégg Ousseynou Seck euh, waxe ko ci vidéo bi di wane ni franc-maçonnerie euh, li leen tax a jug mooy dëgg aku mbokkoo al iqaawa fraternité waaye tamit li leen tax a jug mooy justice al ad al adala waaye li leen tax a jug mooy égalité al musaawaat waaye loolu mbokk yi ay chiaraat la yoo xamante nii ci dëgg-dëgg buñ demee ba ca biir daa xam ne loolu ay kalimaat maasu yoo xamante nii ay baat yu fii lem la waaye du dëgg dëgg loo xamante ni dëgg la ci ñoom tey seeni jëf dana wane ni loo seen wax yooyu seen kalimaan maasula yooyu dëppoowul ak ñoom seeni jëf tan xam ni tamit ci dëgg-dëgg franc-maçonnerie yi benn la ci liggéeyu yahuud yi nga xam ne dañ koy liggéey euh, ci secret tey mboolem buxuus yi nga xam ne dafa am mawduiya saxal nañu loolu tan xam ni yahuud yi ndax kenn mënta waxtaane franc-maçonnerie te waxtaane woo yahuud yi ndax danañ ñëw ci point yi fila bi am ci diggante franc-maçon yi ak yahuud yi nga xam ni limub yahuud yi li muy tuuti tuuti ci àdduna terewul terewulee seen gént googu ñu yàgg gént te mooy géntu dominer adduna bi mooy xol mu saytara ala al alam jaar ko nag ci mboolem ay kuréel ay mazahib ay itijahaat yoo xam ne ñoom ñoo ko taxawal te jéego yooyu te mooy jéego bi yilif àdduna dox nañ ci dox bu sore sori dox bu yàgg la waaye sori nañ ci lool lool dañ ci ñëw ñu xam ne tamit franc-maçonnerie benn la ci jéego yooyu nga xamante ni moom la yahuud yi teg ngir lan mooy ngir yilif àdduna bu ñu xamee ni franc-maçonnerie benn la ci jéego yi nga xamante ni yahuud yi dañ ko teg ngir yilif àdduna waaye du ñoom dong yooyu xaj na danañ ci ñëw ci mboolem kuréel kuréel goo xamante nii am na si la ak yahuud yi tey xidmaal franc-maçonnerie ngir lan li demande fay traité yahud alal alam ngir juif yi yilif àdduna ci wàllu gépp yilif ko ci wàllu koom yilif ko ci wàllu politik yilif ko ci wàllu xalaat yilif ko ci wàllu seen principe yi jàpp ne ñooy ay principe yooyu yépp nag su nga koy def ak kuréel yi ni jëfandikoo ba ay kuréel yoo xamante ni dafa da da ku ko dégg da ngay foog ne kuréel lislaam la te fekk sore nañ ko lu demee ne al baabiya bahaiya qadiyaaniya ak wahabiya ay ay xarakaat yoo xamante ni ca biiram boo ko diraasaa ca taarixam ca tàmbaleem ak alaaka bi amoon ak yahudi ak franc-maçon yi da ngay xamne ay harakat mu daadali islam la ay harakat la yo xamanteni dafa safanu ak l'islam tay ñu ko waxe ci franc-maçon da nga xamni ni kuréel lañ goo xamante ni dañuy mbubboowoo ni ñom ansaarul haqq lan ndax dañu liggéey pour deug comme ni ngeen deug dégg Ousseynou Seck waxe ko yoy dañu ci ñëw ben par ben ñu ni ñom dañu woté al fadila ngeenel ay xiyam raaxiya ay ay valeur waaye ci dëgg-dëgg nag boo xoolee ba ca biir dangay xam ne loolu ay daawi la ay wax la rek yoo xamante nii du dëgg la koy firndeel mooy bu fekkente ne ñoom dam ni dañuy wootee dëgg saamu sonnerie dañuy woote ay valeur dañuy woote nangam ñoo defar école yi ñoo xeex njaayum jaam eh, ñoo fi indi école yi ñoo taxawal si nii ñoo nàngam ñoo nangam bu lee loolu dëgg la bu fekkente ni dëgg la loolu ñuy wax ci kaw lan moo tax ñuy làqatu lan moo tax seen kuréel gi ñu tër ko ci ay rumuus ay talmi xaat maanaam ay ay ay ay ay ay ay kot lan moo tax ñi ci dugg ñu leen di woo ci taa mutlaqa maanaam topp topp bu amul amul amutul yemukaay ba àgg ci odwu bi ciy dugg su dee giñ li muy njëkk a wax mooy te loolu da ko dégg ci kii wu Ousseynou Seck bi euh, mu lay wax ni xolu franc-maçonnerie ci tàmbale bi mooy euh, nga fexe ba euh, mbokku bo maanaam sa mbokkum franc-maçon nga dimbali ko doon taka sax day nekk ala xisaabi waalidika maanaam doon taka dimbali yi ngay dimbali sa mbokku franc-maçon maanaam day nekk contre sa baay loolu dañ ci ñëw. nga xam ni booy dugg da ngay giñ dana ñëw ci taxariif bi mais dañoo bëgg a wax rek ci benn muqaddima soog a dugg ci détails yi nga xam ni da ngay giñ ni aqsimu uqsimu bi xaaliqil kawn al azam maa ngi giñ ci al xaaliqul eh, azam xaaliqul kaw al azam ki bind univers ku màgg ki kooku nag suñ ko waxee yéen waa groupe bi mën naa am seen xel dem ci ni al xaalixul kawnil azam mooy le grand architecte de l'univers ki bind univers bi ñun ñi ñëpp buñ ko waxee dañuy jàpp ne mooy allahu subhanahu wa taala mi bind asamaan ak suuf di yàllay dëgg ji di yàllay aadam di yàllay idris di yàllay nuux di yàllay ibrahim di yàllay moussa ak isa sina ahmed moom ngeen koy teg waaye nag bu dee ci franc-maçonnerie xaalixul kawnil azam du yàlla jooju loolu danañ ci ñëw ci xalil euh, maasuun yi diin am laa waaye yàlla jooju du kenn ku dul Lucifer Iblis rahmatullahi yi ndax ñoom gëm nañu Iblis il est grand de l'univers moo tax lii ci dara mu njëkk bi booy giñ da ngay giñ ne maa ngi giñ ci xaalixul kawnil azam te ñoom jubluwuñ ci yàlla Ibrahima ak Moussa waaye Lucifer Iblis lañ si jublu nga ne wa atahadu an asuna maa ngi jigéen ñi danaa sàmm dinaa nëbbu al asrar mooy secret rumu symbole almasuni da nga jigéen yi da sàmm da nga nëbbu sekre franc-maçon yi nga xamante ni ñi ngi ma koy wax ndax daraja bu njëkk bi danaa am ay secret yun la wax waaye nag bala ngaa euh, bala ñu la ko wax dangay waat waat gii waaw nga ni secret yii ñu may waaj wax ak yi ñu may wax ginnaaw bi laa abu li ahadin biha du ma ko wax kenn wa an am naa mastataatu danaa maanaam tere sama kem kattan ah man yaqsid an yafala dalik maanaam képp koom ñi sax yaa ngi jéem a wuññi comme nii ñuy def seeni secret nga jigéen yi da nga dox euh, diggam ak euh, loolu sa kem kattan mu ni wa aqsimu an unafida an unafida duuna taraddud xatta uxaasira bi nafsi fi kulli umaru bi lil asira nga ni du ma taraddut maanaam nga giñ ñi doo doo déng ci jaay sa bakkan ci képp koo xamante nii yaa ngi jéem a gàllankoor doxu franc-maçonnerie wala ngay wuññi seeni secret wala nga ngay dox ci luy màbb euh, franc-maçonnerie te giñaale nii da topp euh, topp ko sax dàkk sa njiit yi nga xamante nii ñu nekk ci franc-maçonnerie waan utiya ala dawaam ru'asaay far'iyin fil maçonniya léegi nag nit ki mën naa laaj su fekkente ni franc-maçonnerie comme ni ko Ousseynou Seck di waxee ñi ñoom dañuy woote woo fraternité égalité justice ay valeur ñoo nangam ñoo nangam baat bu rafet bu nekk rek mu moomale ko franc mu moom Ousseynou Seck lan moo tax kon ñuy làqatu ku ne ci dëgg lu tax ngay làqatu ak intérêt kan moo tax ñuy làqatu ak ñoom la lan jublu nit ki tam war naa gëstu ba xam franc-maçonnerie diine la wala déet philosophie la wala wala lan la wala lan la te ci gëstu yooyu nga xam ni malgré ñoom yàgg nañoo dox ci ak sirriya yàgg nañoo dox ci xumuut yàgg nañoo dox ci nëbbu seen bopp terewut yàlla mi ngi feeñal seeni mbir waaye nag fekk na bi nit ñi xam seeni mbir ñu dox dox bu sore sore boo xamante nii maanaam samp nan def ay dégâts yu bëree bëri waaye terewut eh, ay nit di dox ngir xam na ñoom ñooy ñan lan mooy seeni objectif lan moo leen tax a jóg dëgg dëgg dëgg léegi nag ci loolu kon dañuy tàmbalee waxtaane ci euh, point bu njëkk bi ci wàllu franc-maçonnerie mooy taarif lan mooy almasoniya mbokk yi bu waxtaanee doon waxtaanee almasoniya maanaam luxawi bi da ngay gis ni euh, masoniya wala franc-maçonnerie dafa composé woo ci euh, ñetti maxaati am suñu waxtane al almasuniya ci tarkib lugawi bi dafa composé wu ci ñetti maxaate maxa bu jëk bi moy fi nan bàyyi xel ta'rif bi ndax bo foosee ta'rif bi rek dana jafe nga xam dëgg dëgg fram fram suñu di haqiqa al masuniya maxa bu jëk bi moy fi moy lan moy al hurr الذي لا يثبته قيد من القيود léegi كون maxtaan بو نك بوبو دي الحر الذي لا يثبته قيد من القيود mooy ku libre koo xamante ni amul lenn lu ko tënk léegi nag diine tënku ko insaaniya tënku ko euh, ay xiyam tënku ko dara tënku ko maanaam liberté pour mu egg fi mu bëgg a yegg amut diine ju koy tënk amut ay valeurs yu koy tënk insaniya humanité tënku ko ba ci sax mu waxta na maanaam comme ñu ni lii dëppoowul ak ak citoyenneté lii dëppoowul ak muru a mbañum rus lii damir mayewu ko lii diine mayewu ko lii sax patriotisme mayewu ko c'est-à-dire franc bi bu ko see ba dugg ci franc-maçonnerie la muy sàmm rek mooy ak franc-maçon ak benn liberté bu ko tënk ngir mu tëddmaal liggéeyal lu tax a jug franc-maçonnerie kon ku libre koo xamante ni dara tënk ko loolu nag ça veut tout euh, ça veut tout dire maanaam tekki na lu ne sax bi mooy maçon maçon bi xam maanaam euh, métier maçon waaye euh, maxtamu ñetteel bi dina ñëw ci baatu mason bi maxtamu ñetteel bi mooy euh, franc-maçonnerie euh, yaa googu yaaw nis bala mi ngi mel ni ñu naan Sénégal yi France yi wala Afrique yi wala yu ni demee léegi soo boole ñetti maxtax yi man ñetti maxtax yi man mun bi daf lay jox mooy franc-maçonnerie léegi nag soo duggee nag ci xaqiqatul maasuniya soo duggee ci xaqiqatul maasuniya da ngay gis ni kon mooy albanaawun al axaar mooy tabaxkat yu libre te suñu waxee tabaxkat yooyu liñ ci jublu mooy ñi nga xamante ni ñoo tabaxoon haykalu Suleymaan mooy le temple di Salomon temple boobu yahuud yi nga xam ni euh, boo demee ci seen tawraat dañuy wax ni yàlla moo waxoon euh, euh, Souleymane wala Daawuda ñu ko tabaxal ma néeg boo xam ne si bu ma sonnee fa laay nuppalu foofu loo fi dégge mooy yàllay franc-maçon yi yàllay yahuud yi kat yàlla yuy sonn la parce que yàlla joo xamante ni day sonn ba yegg ci te tabax loo euh, kenn ci yonenteem yi ñu ko tabaxal ma néeg boo xam ne bu ma sonnee ca laay nuppalu loolu mooy haykalu Souleymane te nee na haykal boobu ah, fii ñu ko war a tabax mooy fii masjidul aqsa nekk kon am na loo fi mën a déggee ndax bu ñëwee ci raay dana leer dëgg-dëgg lan mooy raayatul euh, maçonniya kon ñu xam ni ne franc-maçonnerie xaqiqaam mooy munazama yahudiya la benn organisation yahud la boo am yahud yi ñoo ko créé boo xam ne tamit sirriya kon munazama yahudiya la boo xam ne tamit sirriya mooy ci société secrète yi la bokk irhabiya ci dëgg-dëgg ku xam franc-maçonnerie da xam ni euh, ci wàllu irhab la dox terrorisme ba pare nekk tamit munazama xaamira bokk ci groupe skill yi maanaam kuréel yi nga xam ne dañoo lëndëm ci seen biir waaye nag nekk muxkamatu tanzim maanaam dañoo organiser wu تهدف الى دمان سيطرة اليهود على العالم بكون سي لين تخاجوك موي فخه با جيفي يلف ادونا كوم نين كو واخا وون كي سون مقدمه واي تيب نيو خامني سين رايا بوكو نا سي محاربه الاديان موي خيخ جيني اك اباحه الرذيله موي فخه با تفاري اك مبون واي تيب بوكو نا سي سين رايا tadbiiru sawraat mooy planifier ay révolution yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci ay détails ak ay muamaraat ay conspiration ay complot ay feebar bu ñu waxee feebar nit dana ni ah duñ créé feebar waaye yëpp dinañ ci ñëw waaye tamit bokk na ci lu gën a mat a bàyyi xel te Ousseynou Seck doon ko wax ci vidéo bi di wane ni franc-maçonnerie xeexul diine ankay dafa bokk ci seen objectif mooy alqadaawu ala al adyaan mooy faagaagal diine yi faagaagal li ñu tuddee al axlaaq al faadila ay valeur te pourtant fee waxoon nan la gis nga ñi leen di woote woon de yaa ngi dégg ñu ni ñoom ay valeur moo leen tax a jug euh, ay ay ay ay ay fraternité ay égalité justice kalimaan maasula yooyu waaye ci dëgg-dëgg bokk na ci leen tax a jóg mooy faagaagal diine faagaagal ay valeur waaye tamit fexe ba mboolem xawaanin wadaia maanaam mboolem luwaa yoo xamante ni mooy dox ci àdduna mu nekk dëpp seeni bëgg-bëgg waaye samp ci àdduna bi ay nuzum xayru diini ya ay régime yoo xamante ni day sori wàllu diine nga xam ni danaan dox ci créer ay coup d'état régime bu duxul ci seen waaw ñu jële ko fa teg fa beneen régime yooyu yëpp nag ñu koy def lan ci ay daxaaw yi maanaam mbubboogu ni mbubboo xorriya xorriyatul fikra liberté liberté fii liberté totale liberté de culte maanaam lu neex waay gëm te loolu yàgg nañ koo wax yàgg koo bind ci seeni daje ndax am na benn muktamar boo xam ne defoon nañ ko ci mille huit cent soixante-cinq ci dëkk bu ne wax Liège ci Belgique ñu waxoon ni waxoon ni يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يحرق السماوات ويمزقها كالأوراق موكي فرامو سوي جي سينو بداجي دا نيو واخون ني نيت كي دا فا وارو نود يالا نيت دا فا وارو نود يالا نداخ نيو گم نان ني ادونا بي كوم ني نين ديغ اوسوين سيك واخكو تي فيديو وام بي ولا اوديو بي nga dégg mu ni franc-maçonnerie dañu fexe ba euh, humanité nit euh, maanaam di doxal àddunaam ci nim koo xalaate te ñun leen xamoon mooy yàlla dañuy fee wàcc pour ñu jaamu ko wa ma xalaqtul euh, jinna wal insa illa yaabuduun yàlla mu ni binduma jinne ak nit lu mooy ñu jaamu ma kon ñun dañ fee war a nekk ci kaw suuf di dox ci waawi yàlla waaye ñu fee nekk di dox ci suñuy waaw comme ni ko usuñu fekk waxe ci vidéo muy wax bi suspect te loolu correspondre na ak wax ji nga xamante ni moom la franc-maçon yi waxoon ni yajibu an a al insaan eh, ala ilah nit dafa war a not yàlla déclaré ko guerre xotti asamaan si comme fooy ñu waxaat ci seen beneen maxfal ci 1922 ci seen résolution bi ñu bindoon ci phase 98 ñu ni te lii lii ñu bëgg a wax day dëppoo ak taariful maasune ñu ni saw fa nu xawi xurriyata damir eh, beneen bet ci eh, 1922 euh, daje bi nga xamante ni franc-maçon defoon nañ ko ci résolution bi ñu génne woon par 98 dañ caa waxoon ni te lii day dëppoog taarif bi bi ñu waxoon franc-maçon yi mooy alxurwa alladi laa yatbitu laa yatbituhu xaydu min alquyud ñu ni saw fa nu xaw yi xurriyata damir ñu liberté de conscience maam nit ki dana fexe ba dëgëral ci moom liberté bi kulli ma naa min taaxa ak mboolem lu am ci force ak énergie danañ fexe ba dëgëral liberté nit ki ba nit ki li mu bëgg a doon li mu bëgg a gëm même bu fekkee nit ki sax dafa gëm ni dafa war a fay góor ak góor dafa war a fay jigéen ak jigéen dafa war a jël euh, euh, ab xaj ji fee comme ko gisee ci Europe nga xam ne léegi am nay bërëb yoo ni boo bëggee fee xaj fee xaj boo bëggee fee ak mbaam fee mbaam yooyu yëpp pour ñoom ay liberté la yoo xam ne nii nee naan danañ ko dëgëral bi يوخنا لو كراو ني وصف حربا شعواء على العضو الحقيقي للبشريه الذي هو الدين وسيم فك نينا فرانس دين خير دين تو كو ديك اي بورتان نيوم دان كوي واخ غودي ديكو واخ بتيك ديكو ديف كي سيني واخ سي سيني محافل ديكو واخ سي سيني مؤتمرات نوني دانان ديكلاري غير غير بو متي al udwul xaqiqi mooy noonu dëgg dëgg lil basara yi ñeel humanité te nee na noonub mooy lan nee mooy diine français yi nee na noonub humanité mooy diine ndax ñoom nee nan adduna bi li ko yàq mooy diga di digle yàlla yi ak tereem yi yàlla ay defal yeem defalam yi ak bàyyilam yi neen loolu moo yàq àdduna moo yàq humanité moo tax ñu ne danañ déclaré noonu humanité te mooy diine kon lii kuy taxaw ni franc-maçonnerie ñu diine benn danga nga ko wax ci ñàkk xam wala danga nga ko wax ci euh, bëgg leen a xitmaan parce que am na ñoo xam ne dañ leen di xitmaan wala boog da nga koo wax te bokk ca di jëfandiku seen kalimaan maasoola yi nga xamante ni euh, ci kaw gi mën naa weex mais ci biir gi day xonq wala mu ñuul ci loolu sax la seen bindikat yi doon waxee ni ak diin affaire soxob mooy religion mooy ñu ne religion mooy euh, l'opium du peuple ñu ne diine mooy poison askan wi nee nañ daal diine poson la kon du la baax pour ñoom te waxoon nañ ni inna la naktafi bil intisaari alal mutadayini nee nañ duñu yem ci gañe ñi nga xamante ni ay nit ci diine lan dañoo am diine gañe seen jaamukaay yi nee nañ seen xaaya dëgg mooy ibadatuhum min al wujud mooy exterminer leen maanaam rey leen faagagal leen lii nag du lu wax rek lii dafa bokk ci gëm-gëmu yahuud yi nga xamante ni mi ngi mi ngi ñu bind noir sur blanc ci tawraat loolu danañ ci ñëw bu gënee dugg ci xalaxaat yi surtout ci wàllu franc-maçonnerie ak seen fila ci yahud yi danañ xam dëgg dëgg ndax franc-maçonnerie xeex liberté ak ndax ñoom ñoo ñooñu goreel ci jaayam jaam wala dana xeex diine wala xeexuñu diine dana xam dëgg dëgg franc-maçonnerie ndax ñoom ñoo wax ni seen raaye associé dëgg mooy ibadatu minal wujud maanaam ñu am diine ñu exterminer leen rey leen que ça ci ay guerre wala ay coup d'état wala ay révolution wala ay xiifal wala ay feebar yu ni créé yooyu yëpp nee nañ seen raaya mooy ibadatuhu min al wujud waaw te lii ñu ngi ko wax ci benn muxtamar maasuni yi aalam yi woon ñu ngi ko def woon ci mille neuf cent trois ci résolution bu génne woon ci page cent deux gën naa firndéw ci luy wane ni dëgg-dëgg franc-maçonnerie seen xaqiiqa mooy muhaarabatul adyaan mooy Ousseynou Seck wax na ko ci ay waxam Ousseynou Seck xam nga dafa wax ba pare weddi boppam ci biir wax nee na franc-maçonnerie eh, xeex diine taxu koo jóg ba pare wëlbati ko daan ne ñoo indi laïcité mais laïcité mooy lan laïcité fikr la boo xamante ni taqumu asasan ala fasli diine ani dawla mooy mooy seppi loxo yàlla ci doxalinu àdduna te waxaat na ko ci biir wax moom Ousseynou Seck wax ni eh, eh, franc-maçonnerie day dox waaw sax ma tegal leen kii ba mu gën a leer yaakaar nañu lim di xeex diine ñooñ seen xeex xañuñ ci diine ñoom buñ bëggoon a xeex diine am nañu ay pexe yuñ koy xeexee mais ñoom loolu yittali leen li ñuy xeex mooy ak jaay li yàlla ñuy xeex ak ak ndóol ak wopp goo xam ne wala lépp loo xam ne dafay dal ci kaw doomu aadama ne te duñ ci mën dara ñoom loolu la ñuy xeex li ñuy xeex mooy fexe ba doomu aadama mën a dégg ko adduna bi na ko ba lépp loo xam ne gàllankoor la ci dundam ñi mën koo faagaagal ñoom loolu mooy fem ji loolu nag xel ak intelligence moo koy joxe kon ñoom borom xel la ñuy wax ak waxuñu ak sénégalais yi nga xam ne amuñu xel kon loolu mooy li ci am solo di wax ne kon gis nga bu tuuti moo nekk luy dugg Afrique ak ci dëkku naar yi yooyu yëpp ndax ñoom xam nga seen xel dafa tënku ci pas-pas moo ñoom xel mi ñu bëgg mooy xel mu libre muy xalaat ci lépp du am du yemale boppam fenn kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy xolu franc-maçonnerie ah di ca dox nag lépp ngir humanité humanité nag mooy doomu aadama li nga xam ne moom moo war a gouverner bi ci coobareem ak ci gis-gisam ak ay bëgg ak ci ay loolu ñoom ci loolu la ñuy dox ñu ngi ci biir médecine bi ñu ngi ci biir science. ñu coobareem ak ci nee na humanité mooy doomu aadama yi nga xam ne day gouverner adduna. ci coobareem ak libertéem gis nga génne nañ bu yàgg loxo bi yàlla ci ñoom seen doxalin te saxaaba yi dañoo gëm ni adduna bi da ko yàq mooy li yàlla naan def leen ak li naan bàyyi leen mooy diine rek kon ñoom ñoom franc-maçon ñoo gëm ni humanité dafa war a dox ci seen bëgg-bëgg te loolu correspondre ak leen waxoon léegi nii yajibu an yataxallabal insaan ala illah mooy ni dafa war a not yàlla déclaré ko guerre ak leen waxaatoon ni nag inna la nakafi bil intisar ala ومعابدهم انما innama الاساسيه al من الوجود كون al-wujud بو خين fekk boo خيخ دي تاخو لي نيو يو ييب taxul سي a jóg رد yëpp pour waxam joju waye pour ngeen déggal seen bop li usul fekk wax ak ñoom li nga xamanteni ni moom lañ doon wax diko jëf puisque du lu wax rek lu leen di tumal puisque ñoom ñoo nekk ci xalaatu la almaan yi usul fekk wax nako ci biiri waxam neena ñoom ñoo faram ñoo sof euh lay si ndax ñoom dañoo nekk ci àndandoo ak bëggante ak ndimbalante ci seen biir ba loolu dafa nekk li nga xam ne mooy charte bi njëkk taxaw booy nekk booy dugg nekk franc-maçon li ñu lay njëkk dugal sa bopp mooy sa frère wala ki nga bokkal nekk mbir moom da ngay gën a sa papa sa yaay moom moom bu bu soxlaa wala bu bëgg wala ndimbal da ngay ne jàppalante bu wér bu sax boo xam ne moom da nga koy jàppale sa bopp te loolu sax amul ci tereexe yi nga xam ne ñoom kenn ku la yaa ngi pour bëgg koo remplacer wala nga di ko iñaane ñoom franc-maçon yi duñu iñaanante seen biir ñoom ay frère la ñu dañu jàppalante bu baax a baax a baax lu sa morom bëgg nga ko ko wóolante seen biir di diisoo di waxtaan seen biir ñoom ci seen biir réeréewu ñu dara ñoom am na lu ñu rawee tereexe yeeg ñi nekk ci diina ji yeeg ñi nekk ci créen yooyu yëpp ñoom ñoo avancé ñoo ngànk àdduna bii def ko waaw indi Nations Unies indi la paix indi la démocratie indi am njàng école yooyu ñi ko créé yooyu yëpp principe bi laïcité yooyu yëpp. Euh, foofu mu daanelee laa bëggoon a euh, indi wane ni Ousseynou Seck ji boppam dafa wax wet di boppam wala boog li ma doon wax sànq ma ne xam Ousseynou Seck xamul li franc-maçonnerie parce que ku xam xeexatul euh, maçon yi xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw wax jii di ak diin af yunu soow mooy diine mooy posenu peuple yi ñoo nekk ci ginnaaw wax ji ni al urul xaqiqi lil moy ad-din ñoo nek ci ginaaw euh ginnaaw addiinu lillah wal watan lil jamia kon ñoo nek ci ginaaw ulman yi nga xamni ni dafa jug ngir faslu diinaani dawla to lolu xex ni ne ko taxono a jóg ku xam histoire lay fi ne xam histoire franc-maçonnerie kon suñu tak boo xëy ne franc-maçonnerie xex diine taxu koo jóg ta mom mu reconnaître ni ñom ñoo indi laïcité laïcité bi nga xamanteni nii dafa am ñaari sens waaye France bi nga xamante ni mooy bi ci français yi doxee te mooy xeex diine am na boo xam ne dañuy wax ni laïcité day tekki neutralité mais boobu du laïcité France bi nga xamante ni fa la Ousseynou fekk di dundu xam ne moom euh, kalimaat yi mu jëfandikoo ci maa ngi ko doon waxaat ay fraternité ay nangam nangam dégg sax mu ne franc-maçonnerie xawma euh, sàmm seen intérêt maam dalay lay gënal euh, sax sàmm sa intérêt bàyyi mais loolu gën kuréel ci àdduna bi ngay taxaw di défendre say intérêt te loolu dafa leer ci li usuñu fekk wax ci sa intérêt bàyyi loolu gën kuréel gu baax moo koy woote tey usuñu fekk dégg ngeen ci ay waxam taxaw gi mu taxaw saaga sénégalais yi loolu dañu ci gën a ñëw loolu dafa bokk ci franc-maçonnerie boo ci soog a dugg tam waxal na ko boppam nee boo ci soog a dugg tam mooy ki amee darajatul muftadi mooy daraja bu njëkk bi mboolem rawaabit diiniya axawiya wataniya maanaam mboolem lu la lëkkale woon ak sa usra ba ci sa yaay ak sa baay Ousseynou Seck wax na ko lu la lëkkale woon sa réew yooyu da nga koy dagg di sàmm intérêt franc-maçon yi moo tax kon moom mu mën a wax Ousseynou Seck taxaw di xas Sénégal ngir franc-maçon yi. léegi nag bu ndil fi waatee ci euh, taarixul maasuniya maanaam seenu sosu xam ne ñu daaneele ci point boobu ndax euh, buñ ko toppee xalaat bi day gudd ñu xam ne kon maasuniya benn kuréel la boo xamante nii dañuy liggéey ngir benn raaya depuis moo xam da nga koy delloo ca euh, alxadul xadim mooy franc-maçon gu yàgg ga wala alxadul jadid maanaam franc-maçon gu bees gii am na ñoo xam ne nee nan franc-maçonnerie ma nga sosoo ca suñu maam aadam subhanallah ku dégg leen fi wax da nga xam ni mustahil franc-maçonnerie bi sosoo ci suñu maam Adam am ci ñoom ci ñoom ñoom dañ koy delloo ci jamono Suleymaan alayhi salaam am ñu koy delloo ci Muusa euh, lu jiitu euh, yonte yàlla Suleymaan am kon koy delloo ci salibiya yi waaye li wér te wóor mooy franc-maçonnerie mi ngi juddu ci alqarnul awwal al milaadi yi ku demee ni docteur Ahmed Chalabi nee na ma franc-maçonnerie imtidaad la la jamaatul banaayin al axraar maanaam continuité la ci jamaatul banaayin al axraar ba foofu banaay al banaawul al axraar mooy ñi nga xamante ni ñoo nekkoon di sabax ay temple ay église ñu tudde won leen al banawna al afa wala ñu tabaxoon sulayman moy euh le temple di salamo boobu nga xamanteni amatul te légui dañu gëm ne dañ ko wara tabaxat te fi ko wara tabaxat moy fi ma ci Aqsa nek docteur Ahmed Chalabi mom neena euh franc-maçonnerie munazama yahudiya xadima kaanat tazharu min xiini l-aaxar kuréelug yahuud la goo xamante ni bu yàggal goo am ji danaan nëbbu ko feeñ ko demee ne docteur Abdourahman Amira nee na sans maçonnerie dafa sosu ci bidaayatul xarna al awal al milaadi te lii moo gën a lëng mooy ci euh, début siècle bu njëkk ci al euh, ci milaadi ya nga xam ni xaaxaamaat yahuud yi kànga euh, kilifa yahuud yi nga xam ni rawatina bi nga xamante ni yoon eh, Isa jóge na fii te yàlla suñu borom yéegi woto ñoom eh, eh, nasaraan si bind seeni téere ne dañ koo salab mu faatu ñu denc ko ñetti fan mu daal di dekkiwaat comme ni nga koy bindee sax loolu ñi ko dugal gëm-gëm yooyu ñi ko dugal ci diine nasaraan mooy alquwa alxafiya bi nga xamante nii franc-maçonnerie tur woowu la njëkk a amee moo doole ju nëbbu ndax franc-maçonnerie bi mu feeñee ci alxarnul awal al milaad yi la ko taxoon a jug te loolu dana leer ba xam ndax franc-maçonnerie day xeex diine wala xeexu diine la ko taxoon a moo nekkoon muxaarabatul xaq xeex ak dëgg gi nga xamante ni jamono boobu ñi ko doon symboliser ñi doon symboliser l'islam bu wér dëgg mooy ñu toppoon Isa te weddeeguñ ko woon kon ci tàmbali bi mooy euh, susuk franc-maçonnerie seen taarix Euh, moo nekkoon kon xeex ak dëgg gi nga xamante ni moom la yonte yàlla Isa indi woon te bokkoon na ci ñi leen daan xeex ñoom yahud yi nga xam ne ñoo sax franc-maçonnerie moo tax bi fi Isa jógee ñu doon def seen kéemtalaay kattan ngir xeex ak dëgg googu fi Isa bàyyi ak jéem a faagaagal li mu indi woon yàq ko yahud yi doon jug li it fa i xaq ngir fay leeru dëgg gi nga xamante nii euh, Isa indi woon na ko ginnaaw buñ ko fayee bi ko yonte yàlla musaa indee ndax yonte yàlla musaa bi ko yàlla yónnee yahuud yi xaaruñu ba Moussa jóge fii ñu jéem a yàq lam indi woon ba ba fi Moussa di nekk lam commencé woon di ko yàq ba ne yàq di yàq ba yàlla yónni waat ay yonente yón yónni yónni yónni yonente yàlla Daawud yónni yónente yàlla Suleymaan ñoom it ñu nekk ca dëgg wooga di fay rek wa maa kafara Suleymaan walaakinna shayaatina kafaru ci loolu la nekk naka jekk ba bi yàlla yónnee yonent yàlla Isaa ngir mu delloo leen ci dëgg gi Muusaa ne woon ak ak Suleymaan ñu def ko fiirum noonu ba yàlla yéegee yonent yàlla euh, Isaa salaam ñu def ñi fi Isaa bàyyi woon fiirum noon jug ngir xeex ak dëggoo kon franc-maçonnerie ci début ba rek xeex diine ko a jóg waxuma ba jëmm ni jamono tey am usami fekk di crée franc-maçonnerie xeex diine taxu koo jóg te la mooy dëgg googu nga xamante ni ci nekkoon bokkut ñii mu mel tey nga xam ni yahudi ñoo ko nii def kon leen taxoon ñu bokkoon mooy tasaare ak mbon ak isaatul xayr jële fi mbaax ci kaw suuf te benn buur bu ñu tuddee benn buur bu ñu doon tuddee Hérodus Assaani Hérodus ci euh, xam na gu gàtt moom mu njëkk a jël date bii nga xamante ni euh, mooy année yen te ñu bëri di ci date di wax ne Isa ci la juddu te date bi loolu taxu ko woon a jub bi date wu franc-maçon yi la woon ndax ñoom te ndaje bi njëkk ñu ngi ko def ci 43 miladiya kon mooy xarnu bu njëkk bi nga xamante ni euh, ci la Isa juddu ci ñoom ndat bi ñuy wax te wérul ni sax Isa ci la juddu Hérodis moo ko sosoon ak ñaari conseil yi tuddoon Ahiram Yediyut ak Moab Lavi nga xam ne bi ñu koy sos hadaf bi moo nekkoon lan mooy muxaarabatul xaq al mutamasil fi Isa alayhi salaam xeex dëgg gi nga xamante ni ki ko doon incarné ci jamono boobu ki nekkoon xalifa bi yàlla ci kaw fa moo nekkoon Isa alayhi salaam ak ñi ko toppoon ba ci sax jéemoon koo ixtiyaal ndax salab googu ñuy wax alxuraan dañu kon seere ñoom yahud yii nga xam ne ñoo sos ak franc-maçonnerie ñoo nekkoon ci ginnaaw ginnaaw bi ñu gisee ni nag li Isaa doon woote day gën a dolli ko bi fi Isaa jógee ñu ne nañ dugg ci biir yàq ko maanaam def ci def ab daf te loolu lu mot a bàyyi xel la ci firaax bi am baynal xaq wal baatil firaax bi am bay na xisbulaay xisbu seytaan mooy fexe ba dugg ci biir yàq pas-pas bi noonu la defoon diine Isa nga xam ni euh, taalif Isa ñoo ko ci indi loolu ci ay majaami xam yu bëri bëri yoo xamante ni fan doon dajee ginnaaw Isa fa euh, concile yi euh, nasaraan si doon dajee di débattre ay points yoo xam ni bokkoon na ca ndax Isa yàlla wala yàlla juif ya ña nga woon ca biir seeni manœuvre seeni pexe tax ba seen xalaat yooyu ñu doon teg te yàq diine nasaraan taxoon koo jug te mooy yàlla la Isaa xalaat boobu ba léegi mooy wéy wax ne Isaa lam salab ñoom yahud yi ko doon défendre nga xam ne yàq diine Isaa moo taxoon taxoon ju waaye nasaraan su njëkk sa gëmul woon daawul wax Isaa yàlla la gëmul woon ne Isaa lam salab daawul ko taal yi kon bi yahud yi pénétré bi yahud yi pénétré addiyaan al masixiya indi ci tali isa indi ci ay yàq-yàq yu bëree bëri yoo xamante ni ginnaaw buñ xeexee ak yi masixiya xeexu doole xeex boobu ñu gis ni efficaceul ci leen dugg ci biir euh, diine ji yàq ci ay pas-pas rawatina moobaat yi nga xam ne moo taxoon jógeen te yàlla isa te moo nekkoon jaabuloo nit ñi genn yàlla wax nit ñi dee ak dekk te boo demee ci yahudiya tawraat bi yàlla wàccoon ci yonent yàlla Moussa doo ci fekk baatu àllaaxira yàlla ja nga fekk mooy li yahudi ga mooy wax waxdatul ya wa seytaan maanaam daanaka seytaan ak yàlla doo ko xàmmee ñu si melal yàlla ay melo yu bono bon yoo xamante ni yonente yi ñu ci tumaa njaalo loolu la yahudi yi def ci tawraat bi yàlla wàcce woon ci ñoom bi yàlla yónnee Isa jox ko injiil bi fi Isa jugee ñu yàq injiil ba daanaka la nga tey fekk da nga xam ne lii juliwut ci yàlla subhanahu wa taala du tawraat ancien testament du nouveau testament di injiil xam naa kon day mel ni euh, ci waxtaan bu njëkk ci barnaamijul umma def naa mën nañu taxawlu ci point bi di euh, taarixul maasuniya ak nat abi mais ñu xam ne kon franc-maçonnerie ci début bi da ko taxoon a jóg mooy xeex diine te seen hëdëf boobu ñu tegoon ak seen raaya yooyu ñu tegoon te yooyu dañ ci gën a ñëwaat ci détail ba léegi wàccuñu ko te mooy demande saytratuha ala alam mooy fexe ba juif yi yilif àdduna waaye seen raaya mooy muxaarabatul adyaan xeex adyaan yi tadmiirul adyaan faagaagal diine yi xeex ay xiyam ay axlaaq al axlaaqul faadila mais nag di jëfandikoo ay maasula yoo xamante ni gëmuñu ko te ibaada bi ni mujjee te euh, yahud yi bind ko ci seen euh, téere yooyu di tawraat bi ñu taxriif ak talmud protocolaatu xakama asahiyun benn bu nekk da nga ci gis xaq di nga xamante ni moom la yahud yi am envers yeneen umam yi ta dañoo wax ni mooy ñoom yahuud yi dañoo wax ni ci Talmud parce que Talmud mooy téere bi nga xamante ni ci la yahuud yi leerale tawraat bi bin taxarif ñoom naka leen war a jëflantee ak yeneen xeet yi ak ñoom ñu jàppe yàlla seen yàlla jooju nga xam ne moo nekk ci tawraat te du yàlla Ibrahima ak Moussa mais Lucifer la Iblis ñu ne yajibu ala kulli yahudi an yabzula juhdahu لمنع اشتراك باقي الأمم في الأرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم وقبل أن يحكم اليهود نهائيا باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب ويهلك ثلث العالم ويفعل حكم اليهود ñu ni war na ci yahuud yi bu nekk mu def kem kàttanam ngir fexe bañ a boole yeneen xeet yi ci doxalinu ko suuf nga xam ni yahuud yi rek ñooy am ak sulta ñoom dong ñu ni nag balaa yahuud yi ak ci adduna bi nihaayan parce que daanaka mën nga pour pourcentage bi boo ko doon wax man nga ni soixante dix pour cent ci doxalinu adduna ci loxo yahuud yi la nekk ak seen mazahib yooyu ñu teg moo xam maasoniya la wala sihayuniya wala shuyuuya wala mazahib hadaama yi ngay dégg yëpp ñu am fii la ak franc min qarib aw min baid da xam ne ñoom ñi ngi ci mooy kon ño sulta tamit def seen loxo ñoom dong te ne woon na nag balaa yahud yi atte adduna bi yen atte yeneen xeet yi yajibu an xar bu faw ñu def ay guerre sa du benn guerre première guerre mondiale deuxième guerre mondiale yooyu ay mécanisme la yoo xam ne dañ koo tegoon pour yilif àdduna waaye gis na ñu ne ñu yili ñu alak sulu sul aalam kon bu Ousseynou Seck waxee ni franc-maçon yi moo indi na suuf yi loolu war ñoo xam na suuf yi lan moo ko taxoon a jóg dafa nekkoon benn outil nekk xukuma alamiya ngir dama am saytradifa ala alam ba nii may wax ak yow ñoom ñoo ko contrôlé ñoom juif yi te la ko taxoon a jóg rek mooy wayab xaal xokk mu leen yow mooy juif yi ak àdduna te loolu tey ñu ngi ci mais foofu la ñu taxaw kon ci barnaamiju umma tey ndax kuréel gi ñu doon waxtaane mu naasame bi mooy fexe ba ndaw ñi bañ a dëri bañ a jàdd ci ay baat yu leen di naxe ak ay kuréel yoo xamante ni xamuñu dëgg dëgg la ko taxa a te bokk na ci kuréel yi gën a danger ci umma bi mooy franc-maçonnerie moo tax ñu tàmbalee woon ko waaye dina waxoon ci bi mboolem lu tax a jug bi lu ko yitteel danañ ci ñëw ci ay waxtaan incha allahu rabbi waaye point bii defe nañ ci waxtaan yi dëgg-dëgg ahdaafi maasoniya ak nizaamu duxool fi maasoniya filatul maasoniya bil yahud ak jamaaya yi nga xam ne dafa topp franc-maçonnerie ak seen dangerosité seen xusuura seeni jaraayim ak franc-maçon ndax diine la war a du diine ak bu dee diine la jëm yàlla la ne jaamu ak lan mooy artif dugg ci incha allahu rabbi leen gën a ñëwee ci détail ci radd ñu fekk ci wax yooyu mu doon wax nga xam ni dara taxu koo jóg lu dul euh, lëntal tayit ay nit maal asaf ñi ngi koy topp di gëm wax yooyu comme ni ñu ko gisee ci réseaux sociaux yi asalaamaaleykum waaw euh, Serigne Cheikhouna macha allah xam naa ma tontu ko ci ay audio ndax mbindum guddi bi moom ak bët yi <laughs> damay obligé si takki weer te day métti ak man lool <laughs> macha allah xam naa comme euh, wasaayu état yi nga xamante ni euh, franc-maçon yi dañ koy jëfandikoo pour xeex diini ci Afrique xam naa lu ay wasaay yu bëri la te bokkoon na ci rek comme euh, istimaar tubaab bi bi ñu colonisé ba bay dem su fekkee mën nañ ko tuddee dem euh, dañoo placé woon ci suñu réew yi ay sultaan yoo xamante nii euh, sulta bu nekk rek kaana tax di mu masaare xaxum euh, ñoom mustaamiroon yi bokk na ci yenn réew yi dañ faa tegoon ay nit ñoo xamante ni ñoo leen yàq Euh, jàngal leen takkal leen ay jabar euh, namu sëj boobu boo jëlee lu demee Sénégal ay euh, Côte d'Ivoire ak dëkk yu wër noonu fa def yenn dëkk ñu def fa ay militaire boo demee lu demee ni Égypte Dubaatul Ahrar les officiers libres nga dem fu mel ni Turquie ci Mustafa Kemal Atatürk doon franc-maçon de 33 degré bi ni a xilaafa islami loo xam naa dañ ci ñëw yenn réew yi jëloon ay nit yoo xam ne amuñu woon histoire ci réew ma jox leen nguur la yooyu nag dañ taxaw ñu def ko dañ ko dañ leen foroon teg ngir ñu sàmmal leen seeni intérêt waaw seen seen nufu siyaasiya beneen bi mooy seen ahdaaf eh, yi ñu amoon nga xam ni ci ëpp xeex diine la woon ak tamit eh, jàngal nit ñi eh, seeni principe ñoom ba tax ñu am leen wax duune infériorité bokkoon na ci tamit euh, saytara gun saytaraloo saytara woon njàng rawatina nag ataalimul aali mooy ma supérieur parce que loolu boo demee ci protocolaatu Fakoma ak Sohiyun euh, détaillé nañ ko ci leeral ci euh, ndax franc-maçon yi buñ fàtte ni bi ni daanee nguuru chrétien yi ci Europe toog na lu yàgg tëkkut domination bi ñu bëggoon ñu am ko waaye bi ñu demee ba nangu njàng mi ci loxo chrétien yi téye ko ak seen loxo lan am leen bëgg kon bokk na ci. teggin teg loxo njàng mi tax boo xoolee Sénégal daanaka njàng mu suufee mu kawe bi yëpp ñu koy bayaar da fonds yi ñu koy financé euh, tubaab yi daal bokk na ci tamit ixlaalu sulta makana sulta bu amee état bu fi nekk te doxul ci seen waaw ñu jëlee ko fa yeneen yu bëree bëri yoo xamante ni euh, saytara gin saytara inlaan bi loolu waxoon nañ ko ci protocolaat yi ak mboolem luy ay sport ak yu ni demee euh, surtout nag wàllu média yooyu yëpp ci ay wasaay la yom dana koy jëfandikoo pour xeex diine waaye tamit taxuluxul saxaaf yi c'est-à-dire fexe ba dugg nit ñi ci seen wàllu culture waaye nag pénétrer ay euh, kuréeli diine pénétrer ay kuréeli diine wala jël ay saxfiyaat yoo xamante nii dañ leen di màbbuloo diine di leen euh, di leen jox xaalis maanaam xaalis it kon bokk na ci ak ak ak ak euh, nufuus ak euh, am sulta yooyu yëpp ci wasaay yi ñuy jëfandikoo la xam naa yooyu bëree bëri la yoo xamante ni seen seexuna bokk na ci li ñuy jëfandikoo. seexuna macha allah fii point bi bi may leeral dama cee fàtte taxaw maanaam ci seen ahdaaf yi euh, xam nga dañu seen raaya bi gën a mag nag raaya bi gën a mag mooy iadatu binaayi haykali Suleymaan ala an xaadi masjidil aqsa mooy euh, heykalu Souleymane boobu almason boobu ñu wax ni ñu ngi ci fii masjidul Aqsa nekk euh, ñu màbb ko euh, tabax fa heykalu Souleymane loolu si na si raay bi gën a mag puisque franc-maçonnerie maanaam bi xat di nasar ak ay kuréel yu bari yi nga xam ne am nañ si la moo xam rosaariye la wala sihiyun yi chiiya maanaam munazamatul jumjuma wal ilam school in bonds wala buhaymi club maanaam nu jama eh, jamaatu nuuraaniyuun les illuminati mboolem kuréel yi dañuy liggéey ci benn hëdëf ak benn raaya te mooy hëd eh, mu masjidul aqsa wa wal binaa ala anqaadiha haykalu suleyman al mazum te haykalu suleyman lay wax mais haykalu mahbadu iblis parce que franc-maçonnerie ci bidaayaam ba nihaayaam Euh, comme li def naa Abdourahmaan Dawsari waxoon ni yahudiya la ci bidaaya ba nihaaya te yahudiya googu seen yàlla jooju ñuy jaamu du yàlla Ibrahima du yàlla Moussa mais Lucifer la Iblis moo tax masjidul Aqsa mu seen raaya bi gën a mag pour màbb ko euh, tabax masjidul euh, tabax haykalu Souleymane boobu nga xam ne mahmadu iblis la fil haqiqa ci masjidul Aqsa tey loolu sore nañ ci puisque boo xoolee xos ni ñu koy tax wiidee ak avant sax euh, ñuy créer Israël état bi ñu jaar yëpp lu gudd la lu complexe lu <laughs> lu waaye daal seen euh, raaya bi gën a moom mooy mabbu masjid Aqsa ak tamit tadmir adyaan yi ak nag i'laan fi euh, seenu jaamu iblis alanan waaw alanan ak nag tadmir al alam islami bi te loolu newoon dañ koy def jaar ko ci ñetti guerre mondiale yoo xam ne ci ñaar yi def nañ ko mu def benn bi te loolu mi ngi ñu bind ci seen euh, mu amaraat yi am te ni ñu demee ne Gérard Albert Payek bind nañ ko. waa Serigne Cheikhouna waaw xam na ñu euh, bëree bëri ma am na sax comme ci laaj yi euh, lu ñu war a xam mooy kuréel gu bëree bëri maanaam jumhur azim yoo xamante ni dañoo bokk ci ay masaay muxtalifa yoo xamante ni. dañ liggéey ngir benn raaya boo xamante ni laa yaalamuha illa xaliilun minhum ñu néew a néew ñoo ko xam te raaya boobu mooy ne ma wax sànq rek mooy binaawu haykali Souleymane ala alxaali masjid waaw mooy tabax haykalu Souleymane al mazum xam nga ñoom dañuy wax ni fii masjidu Aqsa nekk fi la ngaagu naay Souleymane nga nekkoon te bul fàtte ni masjid haykalu Souleymane boobu mooy leen waxoon ni yàlla dafa waxoon yonte yàlla daawut ni ko tabaxal ma néeg boobu ni moo sonnee falaa ñu foloo <laughs> parce que ñoom yàlla ji nekk ci tawraat moom euh, du yàlla Ibrahima ak Moussa comme ni mu ko waxee woon waaw waaye ñu bëree bëri euh, comme docteur Sabir Taïman man li wax moom it nee na euh, almasuniya muassasa yahudiya fi taarixiha wa darajatiha wa taalimiha loo xam ne bu ñëwee ci silatul masuniya bil yahud dana gën a leer ba nga xam ne daal ñoom seen raaya bokk na ci kon Euh, li ma wax léegi mooy tabax haykalu Souleymane ci masjid Aqsa te sooy nañ ci nag ci màbbu jàkka ji wallahi azim ndax aramee li ma amoon laax yooyu nekk euh, Palestine tan denc fay saxaaba dañ koo raase def ko ay amakin tarfiyee béréb yu ni caaxaane euh, bokk ne tamit tanmirul adyaan te loolu wax nan ko mooy li ma doon junj sànq ca jeexital ba newoon nan yahuud yi duñ saytara adduna bi nihaayeen lu dañoo taal ay guerre xam nga suñu borom waxoon ne wa kullamaa waxoodu naaraan day waxaat bi af ahallah waaw waxee Moustapha maa la ñu ngi baax di la ziar ana waa Libi ñu ngi lay bu baax waa Cheikh Moustapha euh, nadriyatul muamara euh, wala conspiration universelle contre islam et les euh, loolu xaqiiqa la du wax mu de xaqiqa la loolu xañ euh, na reetul mu enwara moom waxtaanu spécial la la am na waxtaan yu ma ci mosoon def nag waaye mu enwara bi moom xaqiqa la du du wax mu te effectivement franc-maçon yi ñoo nekk ci ginnaaw puisque am na beneen mbokk bu buy euh, junju euh, waxoon nañ ci biir waxtaan yi boo leen seetloo maanaam munazamaat wala jamciyaat yi nga xam ne dafa am sila ak maasuune loolu xañ na dana ci ñëw mën nga ci tudd sihiyuniya shuyuuciya ak euh, munazamatul junjuma waa izaam jamaatu nuuraaniyuun yooyu yëpp dañoo am sila ak euh, franc-maçonnerie bi nga xamante nii euh, maanaam wali da yahudiya la yahud yi ñoo ko créé jëmmi mu amara bi ci boppam hmm? loolu loolu waxtaan boobu loo xamante nii bu bu bu waxtaan bu am importance la parce que naka la yahud yi ci tawraat euh, surtout jara yi yiñ ci tuumaal ay yonent maanaam ak mbon gi liñ ciy tuumaal sàcc fen njaaloo euh, te loolu dañ ko doon def rek ngir tabrir seen i jaraayim ak notion bi li ñuy wax le peuple élisé sax bu laayal muxtaar gi nga xam si ni juif yi dañoo gëm ni moom lan ak sax liñ bind ci tawraat ni euh, damm ak maalu xayrul yahut xillun lahu maanaam yàlla moo leen daganalal deret ak alali keneen ku dul euh, yahut ak mécanisme yi teg ci ba teg ci egg si ci mu amara bi moo xam ci ay guerre mondiale la ñetti guerre mondiale yi ñaari jàll na wala sawraat yeeg jiraay yooyu incha allah dinañ ci ñëw mais mu amara bi moom xaqi boo xamante ni <laughs> ak a leer comme jant sax <laughs> waaw fi xam naa fii firax yi maa am na kuréel yoo xamante ni moom loolu xam ne danañ ci ñëw ci waxtaan wi ak feegun ci mooy kuréelam yi dafa am sila ak euh, maasuniya ah aadaa yi nag moom <laughs> xanaa aadaa yi dundatul waaye daal am na ay euh, tafsiyaat bari la ci taarix yoo xamante ni moom euh, ci lan bokk moo xam ci lif ci ay julli la wala ñu dul julli loo xam naa incha allah danañ ci muse ñëw waaye nag ba actuellement am na ñoo xamante ni moom xañ na mën nañoo bañ a tudd tur waaye daal danañ joxe ay euh, signes yoo xamante nii euh, ak ay nit ñoo xamante nii moo xam ay nitu diina nitu média euh, sportif wala ku ciy jëf-jëfi franc-maçon daal ñu xam ko doon daga nag mën nañoo bañ a tudd ay tur waaye am na de am na ñoo xamante nii moom bu dégg bëccëg franc-maçon yi la ñuy waaw moo xam ay nit yi média la moo xam ay nit yu diine la moo xam ay star euh, ay santeur wala ay ñeneen ñu dem ñoo xamante ni nga ne xidmaal franc-maçonnerie am na ay kuréel yoo xamante ni ah, mën naa ci tudd nag wahaabiya wahaabiya loolu danañ ci ñëw wahaabiya dafa am fila matina ak euh, almasoniya waaw loolu moom lu wér a wér la ak ay yeneen kuréel yu tudd albaabiya bahaiya ak xaadiyaaniya bëri na ñun pénétré daal ba ci sax ay turuq suufiya euh, Euh, waaye nag bu dee wahabiya moom ca ca cosaan la lépp dañ ko pénétré xam nga bokkut ak euh, ay euh, nit yi tasawuf yuñ pénétré waaye am ñoo xam ne tamit dañ leen koy tuumaal te wérut ndax loolu ñoom dañ ciy jublu taswiir suuratul islaam taswiir taarixul islam loolu dañu ko def waaye nag bëri na ñoo xamante ni moom ci ay réew yu jullit ak yu dul jullit yoo xamante ni ci ay membre lan bokk ak ci ay Euh, saxsiya taarixiya ci àdduna bi moom ji ci ci lan bokk salaamaaleykum wa rahmatullah waa sin euh, Baye Mor maa ngi leen nuyu di leen yaar ah euh, kii Xalifa Ñas de moom xam naa leen ngeen ko laaj rek docteur kii maanaam docteur honoris causa boobu ñu ko jox <laughs> nan ko laaj ñen ñoo koy joxe ah ak ñaata nit ñoo ko musa am ci réew mi <laughs> ak ñi koy joxe lan lan lan ngay def ban jox la ko lan ngay def ban jox la ko docteur Henri Soukola ñett de ko musaam ci réew mi léegi moom nan ko laaj ñi koy joxe mu na lama bi koy joxe eh, lan la nit di def ban jox ko ak moom ci yi mi boobam lan la leen defal ban jox ko ko da solo laa xam naa la am na ci jamayaat euh, yi am dafa am fi laag maasuni wala jamayaat maasuni la sax ñuy tudde mun na dama tax jum jëma wal ilam ca université de Yàlla euh, ñooñu de seen symbole rek nga xam ni mooy al jumjuma wal ilam mooy school in bonds kaang boobu euh, ak yax bi day symboliser maam euh, li ñuy wax al fanaaw jeex ci iblis ak euh, maam ramzul mawt maam jeex euh, kii la day symboliser maanaam pare gin pare ngir dee pour iblis xam naa loolu bu ñëwee ci franc-maçonnerie diine la wala du diine ak bu dee diine jën yàlla la lay jaamu loolu dana leer ba ci jaan yeeg rumuus yi loolu boo ko toppoon te ñooñu ñooy décerner kii seen prix yooyu docteur Henri Foucault <laughs> Cheikhouna waa xam nga euh, sihayuniya chiouiya wala salibiya wala euh, comme rotari yeeg euh, munazamaat yi nga xam ni daal dafa am sila ak masuniya yooyu yëpp mën nga ko dugal ci biir franc-maçonnerie waaye teewul ñoom ñëpp nag nday ji nday ju mag ji moom mooy al yahudiya puisque lii am na ci tomb yi mooy euh, jamiyaat yi nga xam ne dafa am sila ak kii euh, mentionné xam nga seexayu seexayu rek waxtaan mën naa doon waxtaan boppam siwaaya noonu léegi nag mais terewul ñoom ñëpp nag ñoo bokk benn raay bu ñu liggéeyal mooy damaanam saytratul yahud alal alam waaw ak tamit seen raaya bu mag boobu di waxoon sànq mooy mabbu masjid assa dafa maabadu iblis boo xamante ni dañ koy mbubboo di wax maabadu Souleymane mais fu ñu jaamoo iblis ibaada xaqiqiya lan lan bëgg ndax ñoom boo xoolee ci saamale bi dañ doon wax ni maanaam anna ala al insan an yatahawwada qabla i'tinaafi al maçonnerie nit ki dafa war a doonum yow laata mu doon franc-maçonnerie waaye ginnaaw bi sax da nga gis ni bàyyi nañ ko bàyyi gi nag du caage ni maanaam dañ lay defu yëwut boo xamante ni yàlla ja ngay jaamu du yàlla Ibrahima Moussa mais boo demee ba ca fin ba moom da nga doonul mais boo doonul yahut am même boo duggee ci franc-maçonnerie ci yi ngay yem waaw ñaari ndax dafa am euh, ñetti xismu. am euh, ñetti ñetti firaq mooy almasoniya al amma ak almasoniya al mulukiya ak almasoniya al kawniya mais boo boole yëpp nag mooy 33 euh, boo nekkee darajatu muftadi booy soog a tàmbali. am na fu lay jaarale ba nga yegg ci ñett yi boo jugee ci ñett yi ba egg ci euh, euh, juróom euh, ñaar yi maanaam boo jógee ci ñeent yi boog jàpp fukk ñett yi foofu am na faneen fu lay jaarale pour nga nekk bokk ci darajatul kii maanaam almaafiniir mulukiya mais boo doon lu yëful nag moom foofu lay yem loolu tax lool ginnaaw bi leen ko nag waaye ca bidaaya ba moom Euh, faaw nga doon ak jiwóot pour dugg ci mais nag pour nga yegg ci darajatul kawniya ba nga xam ne ci nga yemee trente-troisième degré boobu moom faaw nga doonub euh, yëfwóot beneen bi même kuréel yi demoon nan ba xam ne dana leen démasqué waaye moo tax ñu sos ay kuréel yu bëri yoo xam ne dafa am sila ak maçonniya di liggéeyal euh, ahdafi maçonniya te ñu bëri duñ ko xam waaw moo xam ay kuréel yu nekk ci diine yi wala kuréel yu sportif wala ay jamayaat xayriya wala yu demee te yooyu yëpp ay ahdaaf maasuune yi lañuy liggéeyal parce que xamoon na ne daan dem ba ba découvrir leen moo tax ñu bëri ay tur mais ñoom ñëpp ñu bokk luy liggéey ñoom ñëpp ci yahudiya la ñu gongi ko yahudiya goo xamante nii euh, euh, yonente yàlla Moussa xamu ko woon yonente yàlla Isa xamu ko jàngalewu ko tayit yàlla jooju ñuy jaamu loolu moom dinañ ci ñëw waaye du yàlla Ibrahima ak Moussa